حيلا لا لا إلا الله لا إله لا الله حيلا لا لا إلا الله لا لا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 المصطفى والصفا وقتي بمولده أبيت عند الصفا المصطفى والصفا وقتي بمولده أبيت عند الصفا لقد رزقت وداد المصطفى والصفا وقتي بمولده أبيت عند الصفا لقد رزقت وداد المصطفى وطيب مولدي أبد نسبا وقبل ذلك أيام تطيب له نفسي بمرقة خير الخلق عين السفا لقد وداد المصطفى وتوى وطيب مولدي أبد نسبا نعم وقد رحت من فاس ثنية ما وسته من أراه للقلوب شفاء لقد وداد المصطفى وتوى وطيب مولدي أبد نسبا تحركت قبدي

وحدة ورحمة ربي جهرة وقفا لقد ولاد المصطفى وتواوتي بمولده أبيت الصفا به أرجي صراطا يتقيم به هذه القرون فيلفى كلهم هنفا لقد زرت ولاد المصطفى وتواوتي بمولده أبيت شمل الكل رموم الذي كان أسر النور والخلفاء ذقت وداد المصطفى بجاه من إسراء وقيصر صاحب المصطفى منتقى من قد هدى ووفى لقد رزقت وداد المصطفى والصفا وقتي بمولده أبيت عند الصفا لقد المصطفى والصفا وقتي بمولده أبيت عند الصفا إن الله لا إله إلا الله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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله فما قطعوا في الشرق والغرب فتفدا إلى مكة إلا لسم سذائي والإملاء وعين اليوم عين محمد سرات الروح في حي كلي وروائي وأحل زماني كلهم فاض راقيا تفسير حوائي وما قلته سرعا ودعوى عريضة وحبت جميع الفائزين ورائي وبي يرفع جور العظيم وإنه بفيدي ينال الدين نرفع لوائي ومن ساء يأتي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 بوصفها غبير أجل إني بأوصاف لا سفاء ولا ماء ولطف ولا عوام ونور ولا نار وروء ولا جسمنا تقدم كل أديس غديم ولا مكل هناك ولا رسمنا أيا أولا ويا آخرا عند ظاهرنا ويا باطننا نوره كلنا سرنا فأت بخرب واقتدم بمعرتنا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 إلى الله تذل لمن تقوى فليس خاسل إذا ردي المغبوب تهلك الوصول تزل لمن تشاء بالرؤيا جماله ففي وجه من تخوى الفراقدي ونفسي تسطرت عن دهري بذل جنابه فصرت على داري فليس يراني فلو تسأل الأيام ما اسمي وما درت وأين مكاني ما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 ilaha illa allah ya la ilaha illa jërëjëf jërëjëf merci beaucoup Amadou Kane ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci ni nga tàmbalee tey guddi gi nga xamante ne tey dañ ci fas yéene waxtaanee Cheikh Kulli Awliyaay minka ilayka cheikh al islam alaaji ibrahima Niass ah bi nga xamante ne moom mooy sunu buntu ci yàlla donc tey eh, bu ñu koy waxtaanee defe naa nii rek la mën a demee ñu ngi nuyu mbokk yi xaritu téléspectateurs yëpp yi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel jamono ji fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen gërëm bu baax a baax tey nag eh, ñu fas yéene dalal ki nga xamante ne moom moo di oustaz Mouhamadou Lamine Kouta eh, ñëwoon na fi ci bésu Kazu Rajab bi waxtaan fi waxtaan bu am solo waaye lañ ca bëggoon waxtaan yëpp xëy na temps bi may ñu ko woon moo tax tey ñu war ko tey ci plateau bi ngir ñu waxtaanee ki nga xamante ne moom moo di Baye Niass ànd ak nag suma xarit bi nga xamante ne moom moo di euh, euh, moo du Mboup Ah, moom mi nga xamante ni miin ngeen ko ci plateau yi ah, su ko defee tey ñu fas yéene ko séq waxtaan ak moom ngir xam ah, kan mooy dëgg-dëggi baay ñas ci jamono bi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu bëri fu mu nekk ñu ngi ñu topp ci réseaux sociaux yi di ñuy envoyé message fu ne ci àdduna bi di ñuy wax ni ñu ngi bàyyi xel li nga xamante ne moom moo di émission bi kon nag tey daañu waxtaanee ki nga xamante ne moom moo di Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass sëñ Modou nuyu naa la ah Mbaye moom ma nga ca warga ba <laughs> euh, di amaan mbégte bu baax di bokkaat ak yow plateau. Mm-hmm. Eh, di sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. sant Cheikh Ahmadou Bamba. Mm-hmm. Eh, ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Eh, waaye ñaanal alxaaji Cheikh Mahi Niass. nga xam ni tey moo wóotu Cheikh al Islam Baye. yàlla taxawoo ko yàlla dimbali ko. mu nit koo xam ni. fan yi ñu ngi topp jotaayam ci réseaux sociaux yi. ni muy indee tafsiru alxuraan bi. ndeysaan muy ko xamni sa soko soo rek wala nga toog ak mom mhm. wala nga diko diglu dana la jox leçon bo xamni dana la baye ak lo xamni mhm. boo topé man nga ci jeriñu adina mhm. muy nit ku baax koo xam ni euh, ndeysaan fa baye ba tegoon tankam rek fa la ko tek la baye beugon tamit mom rek la bëgg ndeysaan barki dem la jógee Njaasaan seeti seexal bekay mi nga xamni ni mooy xalifa xam ci ca mu yag ba nga xamni ño bokkon daara ju nekkon loolu rafet mu don lo xamni ku koy gis ñi nga xam ni mag ñi euh, lu baax rek la ñu bëgg mhm. ñu ngi ndokkeel euh, diine ji euh, ndokkeel képp koo xam ni taalibe bàyyi nga mhm. di jàkkaarloog ndeysaan émission bu mag bii ngir fas waxtaan waxtaane ki nga xam ni mhm. international koo xam ni ndeysaan li mu def ci diine ji li mu liggéeyal ci lislaam mm-hmm. euh, ko gis mu ngay tudd yàlla mm-hmm. koo gis mu ngay mu ngay wéetal yàlla mm-hmm. koo gis mu ngay xalaat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam euh, gars yi koo ci romb rek ci taalibe bàyyi yaa ngi fekk mu yor kurusam euh, di sabbal boroomam di jéggalu boroomam di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yaakaar naa ni bu nu seetaanee danañu jariñu te bàyyi jëmm joo xam ni barki dem rek xaw ma yàggul maa ngi maa ngi maa ngi dugg ci internet bi ndax man dama am cofeel ci moom ndax dama koy déglu damay déglu ay waxtaan mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, jëm la joo xam ni boo ko xoolee da ngay xam ni kii mm-hmm. nitu diine la kii moom dëgg dëgg dëgg dëgg moom danga nga ci moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nag ñu ngi ñaanal euh, njabootu cheikh al islam gépp ziar leen waaye amaan mbégte jàkkaarloog cheikh Mohamed Lamine Kouta euh, ndeysaan ci jotaay bi ñaan lépp loo xam ne sotti ko fi ci xam-xam mu doon loo xam ne dañ koy jëriñoo ci àddina Euh, mu doon loo xam ni yiw lay doon liggéey bi ñu ngi lay ndokkeel yow ndax xam na ne fi nga toll ci seexal islam <laughs> ndax wax dëgg yàlla nit ku ne euh, ragal péete day xañi wërsëg alaaji Abdul Aziz Dabakh dafa daan wax ni euh, nanu bëgg ñëpp mm-hmm. waaye ku ci nekk nag mm-hmm. na nga na nga bëgg sa péete ndax péete mën ta ñàkk kon nag ni nga toll ci seexal islam bëgg gi nga ko bëgg loolu moom wax dëgg yàlla euh, gis na nañu ko te it yàlla na la bay bëgg euh, yàlla na la soppal boppam la nga bëgg ca xadara boobu yàlla na la ko yàlla defal ma nuyuwaat mbay mi nga xam ne mu ngi ci orga yi waaw tabaarakallaahu yaakaar naa ne ah daw sànq kon ba taay ji tey moom non tey moom affaire moom waaw na nga def eh. attention nag. Ah, ah. damay bañ sikkal si jàpp la. <laughs> ba nga fool ataay ji. tuuti ma jooy tuuti kon tabaarakallaahu. mais Yves ndeysaan. Ah, maa ngi nuyu Amadou mi nga xam ni moom mi moo doon sikkar. tabaarakallaahu barki démb daje nañu si ba xotaan. Mm-hmm. ci Seydou Nourou Ba. ma mm-hmm. xam ni daanaka mu ngi ci juróom ñeent fukki at juróom. Mm-hmm. di di di di di di koo xam ni defaru si Alassane ah dem waaw naan maag moom ca baas ba ndeysaan bi mu ñëwee ñu jox ma cër ci digg cérémonie bi lañ jël carte jox ma te loolu ndeysaan maa ngi ci ziyaare cerno bi def loolu euh, ziyaare si njaboot seexal islam gi yëpp maa ngi koy dokkeel itam bay nuyu nañ la waaw i vraiment euh, li ñu woy sànq li ñu sikkar sànq sama yaram dafa daw wax naa la fii keroog ne euh, su ma amoon doom mhm. Euh, euh, comme si mënuma nekk ñaseen euh, mhm. ñaseen laa koy may mhm. parce que seen baax mhm. seen seen xam seen seen seen diine ñu ñoom ñaseen yi du ñu wax kenn lu bon dañoo maandu waaw te soo soo dee xool man daal dama leen respecté torop torop torop ba pare dañoo dafa respecté dañoo respecté yeneen religieux yi te bàyyi jàmbaar la dem naa Kaolack war nañ ma fu mu dëkkoon ah ma visité lépp sama yaram dafa ndaw Euh, dama doon tuur sax xéwal fan yee <laughs> waaw ah, lu ma lu may naa ko nag waa parce que neetaan ay sang may def siñ léegi nee na ma ñaaxarañ ngi toog ñaaxarañ mi ngi toog kër kër nogay kër xaritam mhm. jàkkaarloog DTV ak ñoom ah, ay saa borom parcelle ñoom ñëpp nuyu naa leen ah. Mhm. ah di si nuyu di si nuyu daal ñëpp ñu ngi seetaan ñoom mhm. bira sama xarit ñëpp vraiment nuyu naa leen ay ci kontaan nañu su ko defee nag mbay euh, ñu dalal Assane tamit Oustaz Mouhamed Lamine waaw Assane assan borom bamb oto boobu message na ma léegi. Mhm. chauffeur bi. Mhm. nee na moom tamit ndekete ñaseen la. tey laa koy doog a xam taalibe Baay la. ah, ah Assane mhm. te Touba la dëkk. mooy chauffeur bamb automobile. ndeysaan ah Assane ku baax la. assan ñu ngi koy su ko defee ñu ñu dalal euh, oustaz ñu lay dalal. Mm. di amaan mbégte euh, tey sa teewaat ci plateau bi. Euh, ngir jëmm ji nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee mu nekk nag lu xat waaye fexe nga ba teew ci plateau bi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته استنى بسنته واقتدى به وبهم إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي أدنى دي weeru koor wu barke wi nga xam ne weeru quraan la man nga wax en même temps weeru bonis bi sallallahu abu dharrin al xifaari jóg ko liman taasutu ya rasulallahi ñetti ci toskar yi ku ko moom mm-hmm. mu ne ko benn bi mooy ku dundak sa ñaari waajur bañ xëy bàyyi la fi wala yow nga bàyyi leen fi mm-hmm. te jëfaloo leen lu la yàlla gërëmee ba war laa dugal aljanna mm-hmm. saxaaba yi ne ko kookee toskare ko ne ko euh, ku fuñ ma tudd tawxut sallallahu alayhi wa toskare ñaal na ko ñu ne ko kook toskare ñaal na ko yaa rasulallah ñu ne ko ñetteel bi nag mu ne ñetteel bi mooy ku fekke wéru koor bam jeex te defalo ci yalla lum lam maye ak mbax mhm. man la jéggel man la yërem mhm. ñi ñaan yalla yalla bu ñu ñett yooyu yëpp bu ñu ci benn dal yalla nañ am xamné moy ñël njëlbeenu ki mhm. yalla nañ am ak ngoreem wala ak njéggalam mi nga xam moy fukk yi ci digg yi mais yalla nañ am ak goreem mi nga xam ni ci safara moy fukk yi ci mujjii di nuyu nak mbollem khalif généraux yi nga xamne ñi ci réew mi bu mo ne ñëpp rek duggal na ñëpp waye ñu jiital ci suñ khalifa sahib al qiyadati al uzma wa ayat al dahri sayyidi cheikh mohammed al mahi cheikh ibrahim Niass ustaad al kursi ñaanal yàlla yàlla gën ñu ko fee bàyyi lool lool lool lool des goo xam ne day ànd ak wér des goo xam ne day ànd ak kattan ak sago ak tal mu continuer di wéyal masiira baayam bi sëriñam Cheikh Ibrahim Niass te nekk suñ ilimaan daiman waaye ñu des ñun tamit di nekk ay maamoun ci gannaawam daiman di nuyu al imaam al akbar sayidi Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé di imaamu ratibu Medina Baye. Mhm. di sëtu Baye bu barke boobu nga xam ne. man naa wax ne ndeyjooram bi rek yóbbu na ko aljanna. Mhm. la shaayir ba doon taggee sëriñam euh, sangam ba. Mhm. mooy la mën nañoo wax ci jamonoy. tey. ma mutahalilan ka annaka tuutihi alladi anta saailu dafa tabe tabe ba booy ñëw di ko ñaan si dafa yàkkamti jox la ba mel ni sax li nga koy ñaan si yow yaa koy andil yaakaar naa tabe foofu la yem di ko ñaanal yàlla yal na yàlla gën ñu ko fee bàyyil ci barke bàyyi di nuyu suñ bàyyi suñ sëriñ suñ lépp Seydi Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass ñu gën koo xam ci Baba Lamine mu nekk représentant xalif fii à Dakar mhm. di bàyyi ju baax xam ne mën nga ko mhm. ooye ziinatu kulli mahfalin mhm. jotaay bu mu dem rek mooy taaru jotaay ba ci wilaayatu ci xam-xam ci lu ne ñu ko ñaanal yàlla yal na yàlla gën ko fee desal mbootam baayam Cheikh Ibrahim ak eh, gis-gis ci moom ba ko yaakaar naa la ëllëg nga nekk ndimbal ci sama l'avenir yoon bi mhm. loolu ñu ngi koy gis yàlla bu buñ dañ di ko gis di bàyyi ju baax joo xam ne lim def ci man sama bàyyi ji ma jur defut ko ci man ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan di ñaa nuyu an naatiq xaras mi porte parole bu Medina Baye zeyna shababi nga mhm. xam ne tey ma ngi ca nazilul xaram ma ngi mhm. ca makka di def omra mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itamit yal na yàlla delloosi ko mu ànd ak bépp yiw bépp teraanga ci barke Baye di nuyu Baye ju baax joo xam ne mënuma ko ñàkk tudd sa chiir Cheikh Haaj Mouhamad Zeynabu Ñas nekk ca Medina Baye tey di Baye joo xam ne ne ceen moytu leen mhm. jooju bàyyi ku am jeneen bàyyi judul jooju jëlal mhm. man préféré na mu ne suma baay ñi ngi ko ñaanal yàlla mhm. ci xam-xam bu leer mbaax gi ci mën a wax lu wér nga xam ne dafa jafe dafa jafe ci jamono ji waxuma ne kenn waxul lu wér na leer mais yàlla da koo may dafay wax wax joo xam ne da lay leer na wax ji da koo dund te nag bokk na ci mën a nettali histoire fekkee mhm. ñu koy ñaanal yàlla yàlla bu mu dañ mukk di nekk taar ci péyeb Cheikh Ibrahim maa ngi nuyu sama soppe ma mag eh, te mu tàggu tàgguñu barki démb Cheikh Mouhamadul Mansour Niass Cheikh Mouhamadul Mamoun mhm. xam ne buñ dañ mukk di ko jooy mhm. ndeysaan euh, mu ngi noonu ah su ko defee euh, dinañ dellu soit léegi léegi ci euh, plateau bi Amadou ñu bàyyi la yoo tamit nga nuyoo ah, ni nga ubbee neex na waaye dañu bëgg tamit mën nga bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi. salaamaaleykum wa rahmatullah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah si leen leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. di jiital ci nuyoo bi xalifatul am muy Mawlana Cheikh Mouhamad al Mahi Ibrahim di ko ñaanal yàlla guddal fanam te may ko wér di nuyu ki nga xam ne mooy imaamu bi muy Cheikh Ahmad Tidiane Alioune Cissé di ko nuyu di nuyu njabootam yëpp di nuyu porte-parole xadara bi itam bu Cheikh Mouhamad Naahi nga xam ne comme ni ko Cheikh Mouhamad la ñu waxee mu ngi fële ca Màkka uti fa mboolem jullit ñi eh, waaye utu fa itam mboolem ñi nga xam ne ñu ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah eh, ñu ngi nuyu itam suñu papa eh, di waxee Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass nga xam ne moom moo représenté xalifa bi fii mhm. ci Dakar nekk kooku xam ne ni chaque buñ xëyee fii Ndakaaru ñu ngi dund ci ay tëbbam. Mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal. dugal ay cëram. Eh, di di di la nuyu yow. Mhm. yow di jëg mhm. vraiment sonn nga ci émission bi lool. ndeysaan <laughs> lay bu baax di la ziar. ku ku bëgg yàlla nga waaye itam ku bëgg Maulana Cheikh Ibrahim. Eh, ñu ngi lay kontaane bu baax a baax. gannaaw loolu itam ñu ngi nga xam ne ñoom la ñu àndal. di ay zakir yu mag ci xadara bi. di ay kilifa ñoom mhm. kenn ku nekk rek mëna taxawé kuti mhm. waye bu ñu yëgee bis bi rek dañu bàyyi lepp ndax and mhm. ci yalla mo waral lool ndax kat mo ñu jàngaloon kaddu ci yalla mu ñu waxon né and and lay fi waaw na ngeen and ci yalla tax té képp ku jitu talal loxo moromam ngeen and dem té loolu tay ñom loolu lañ def man dama tok ñu jitu rek waye yalla xam na ni ñom ñomay jox loxo. ci seen tëbb laay waxee. ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye. di suñu mag di suñu xarit. ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di Zakir ak Seydi Aliou Mbodj. nga xam ne moom suñu mag la. di sikar kapitan bu mag bu ñu ràññee ci xadara bi. waaye itam ñu ngi suñu xarit suñu soppe Seydi Omar. Sabali di ko ziyaar bu baax a baax. di nuyu ñëpp waaye ma lay ñaan nga may moom ma nuyu. koo xam ne. wala sax ma ne mm-hmm. xam ne dañoo sonn ci man émission mm-hmm. mm-hmm. di nuyu waa Saint-Louis yëpp itam maa ngi noonu itam lay nuyoo Cheikh Ba euh, tey ñun suñu alaaka bii ñu am ci buntam la jaaree dëgg la ndax moom moo boole da yàlla def ñu jaar fii yàlla mm-hmm. barkeel ko lool mm-hmm. tey ñu ñëwaat fii nii mm-hmm. dëgg la kon ñu ngi koy nuyu bu baax moom Cheikh Baye Hadi nga xam ne itteem yëpp faydu bi la itteem yëpp jeunesse bi la waaye itteem yëpp ngir dëgëral diina islam ñu ngi koy ndokkeel bu baax ci guddi gu rëy gi nga xam ne mu ngi koy wàcc itam muy laylatul qadr bi le neuf incha allah le neuf fële ca Medina Baye nga xam ne xam nañ ko jarul ci ñu koy présenté waaye ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax di wax ne ngi ànd ak moom ci guddi googu itam di ko wax addina bi yëpp suma xarit suma soppee euh, ñu koy wax ci Thierno Omar Gollo ko mhm. nga xam ne émission bi sonn na ci loolu tey këram laa ndogoo lu mu xam ci teraanga mhm. def na beneen bi mooy itam ku ku ku ku bëgg ki nga xam ne moom moo war a def waxtaan bi tey la mhm. muy Cheikh Mouhamed Lamine Kouta dëgg la eh, ñu ngi koy bu baax di nuyu waa xadara xadara bi yëpp waa jamaa bi yëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu itam Cheikh Mouhamed Lamine Kouta di ko uh-huh. ñaanal tawféex di nuyu àdduna yëpp Sénégal yëpp kontaan nañu jërëjëf euh, gërëm bu baax a baax su ko defee cheikh bi ñu bàyyi la nga nga eggali waaw mm-hmm. waaw di ko ñaanal yàlla cheikh mahamadul mansour mm-hmm. yàlla na yàlla yokk leeram mm-hmm. yàlla desal barkeem ci njabootam di nuyu taawam doomam moom laa ànd noon noonu alxaaji baabu sarr xam ne moo nekkoon ndeyjooram nekk léppam nekk di ilimaan ci jumaam ji moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko gërëm ñaanal suñu yaay jañ bàyyi ci kër ga cheikh fatima zahra dem ak Seyda Mbodj Seyda Madiame njaboot gi yëpp. Mhm. ñu leen Euh, di la gërëm di jëyif en même temps beneen yoon ndax yonent bi def ñuy wax ne yàlla dafa wax ci xadisul qudsi ne abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajraytu niamata lahu ala yadayhi mhm. sama jaam bi doo ma gërëm mukk ma nangu ko lu dul da nga gërëm ki ma jaarale xéewal gi ba mu agsi ci yow buñ mhm. mënee toog fii tey buy benn minute di ko ànd ak soppe yi di wax ci Cheikh Ibrahim mhm. loolu la boo xam ne yaa ñu ko may di boo xam ne il ñu saluer ko di la ñaanal sa soppe Cheikh Baye Hadji mi nga xam ne lii moom la ko ñaanale ndaw la yoon te bu mu fa kastalu yàlla na mboon di ànd ak di ndokkee julli weer wi li ma wax rawatina ci guddeeg tey gi wala suba nga xam ne bu ma juumul mooy xaswatu badrin nga xam ne ci la yàlla maye woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndimbal loo xam ne ndimbal du ko faree kaw lislaam amee ci beneen buurin di badrinil kubra badril qitaal nga xam ne fañ ko doon xaree Baye Niass jaar na fa guddi jaar na fa bëccëg mhm. jaar na fa guddi nga dégg mu ne fa jitu li badirin mawhinan wa shabibati naguud rimaara leyli min kulli xaaliki mhm. mhm. maa ngi nii guddi di jaar badar waaye maa ngi xotti guddi gi fa mu gën a lëndame jaar na fa bëccëg fekk chauffeuram bi nga doon dawalal mi ngi tuddoon Saalix mu ne ayasmahu sawaaqi فأدنوا معاتبا لأهل القليب الكافرين أندتتو ndax Saalix dana xaw a ralentir tuuti rek mu taxaw tuuti ma wax lu waa kàmbu gi nga xam ne fi la leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam suuloo keroog bam leen ba ko yàlla ne ko danaa la jox ndimbal ci seen kaw ponkali màkk yi ko doon fontoo yëpp mu nërmel leen ci badar gas benn kàmm sul leen fa tiim leen na leen man li ma yàlla digaloon ne dana ma may ndimbal may na ma ko yéen nag li leen seetaane di ma digaloon ndax da ngeen ma gañe ndax may na leen ko sëy naa warum ci peggam ne ko yaa rasulallah ñi dañ laa dégg mu ne ko lestum bi asmaahum mimma aqul gënu leen leen a dégg li may wax gayra annahum laa yujibuuna waaye mënuñ maa tontu kon gis nga lam leen wañ ca badar ba léegi ma ngi fa toog di mm-hmm. xaar mm-hmm. Eh, kon nag guddi yooyu buñ ci nekkee mm-hmm. yenentu bi amoon ci ndam dañuy ñaan yàlla yàlla na ci mayaatee lislaam ndam yàlla na ci mayee jullit ñi ndam mais mu rëkkaaderewaat ñi delloowaat ñi ci yoon wi ñu war a jaar ndax li defaroon démb rek moo mën a defar tey dëgg la ñu ngi lay gërëmaat beneen yoon di ñaanal yàlla yàlla na yàlla may ñu ñu dugg ci émission bi ci jàmm di nuyu mbokk mi mënuma ko ñàkk tudd Cheikh Modou di xarit nga xam ne depuis ma jógee fi ci yoon bële ñu bëri ñu ngi naan maa ki toog a toog na yow de xol bi set na te xol bu mm-hmm. set kat moom la góor ñi doon sonnee pour seen mm-hmm. topp yi seen xol yi mën a rafet Baye Niass dafa wax ne mm-hmm. ko yàlla mayoon moom sërru te ku ne xam na ne yàlla may na ko ndax ca na ne xassani bil ilmi wa tasmin kultu ko kon danaa tànn soppal yàlla bind na kenn ne ko li ma yitteel mooy ma defar benn benn yi mel ne yow nga xam ne bu seen xol yi baaxee xol yu bëri danañ baaxee ci ñoom kon boo nekkee taalibe bi Cheikh Ahmadul Khadim mu nekk maam joo xam ne Sénégal amel nañ ko njukkal buñ ko fayagul mukk te doo mën a danañ ko ko fay benn personnalité boo xam ne dafa sacrifié ngir nation am kooku bëgg ko ba dee rek sax taxul sax ñu jox ko mhm. kon boo askanoo foofu mu defar sa xol nii rek nga mën a mel mhm. eh, taalibe bu nekk rek adresse u eh, sëriñam la dëgg la taalibe bu nekk rek mbindam sëriñam la mhm. buñ la buñ la mënta jàng rek ci yow la waaye sëriñ bi moom mbindam loolu nag dafay valable ci suñ kër maam Cheikh Ahmad Bamba mhm. valable ci kër maam Cheikh Ibrahim valable ci suñ euh, Cheikh Hadj Malick si mhm. Tunkor mhm. Sénégal la yàlla may teranga boobu yàlla nañ ko xam téye ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi baal ma sama mbokk zakirunallaha kasiran Cheikh Ahmadou ak équipe bi mu ànd yëpp digg yàlla am mhm. seen tudd yàlla dafay laal xol am na ku mu fi jooyloo léegi ci plateau bi te dafa am ku jooyam feeñ rek mais am na ku jooyam feeñut Baye Niass loolu la ko yàlla may mhm. taxaw na ca Arafa ci mhm. aju ñaareelam 1951 eh, ci bésu talaata waqaftu yow yowma thulasa bi arafa adkuru rabbi dikra abdin arafa maa ngi nii ci arafa ci bésu talaata maa ngi tudd yàlla tudd ak jàmm bu ko xam tudd ak jàmm ko xam nag boo tuddee da ngay mujj tax yow nekk li ngay tudd yàlla may ñu mbóot moom te bàyyee ñu ko ci barke Baay asalaamaaleykum wa rahmatulah ay cee defe naa ne sëñ Modou déjà euh, dugg nañ ci waxtaan bi <laughs> tey tey tey dama bég ndax wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, Cheikh Mouhamadou Lamine mm-hmm. euh, xam-xam bi ko yàlla jox waaye itam ni mu koy génnee ak ni mu ko waxee réew mi danoo soxla plateau am naa ci moom cofeel am naa ci moom yëg waaye am na nit ñu ni ma ki ñu indi woon de mu toog ci plateau bi di taalibe Cheikh al Islam kooku de boroom xam-xam la te wax na wax joo xam ni ku ko dégg da xam ni boroom xam-xam ngi ne bi kon nag ñu mel nii bu leen amee ñu mën a mën a jàngale njàngaleem Cheikh al Islam Euh, wax nu ci seexal islaam loo xam ni mhm. képp koo xam ne ak tarixa mu mën a nekk mhm. ak boo mën a bokk mhm. euh, day day day doon loo xam ni euh, kooku ñuy wax te te te mu taxawal diine taxal fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam boo ubbiwul sa xol tabbal ko ci dugaloo ko ci yow bu nee ni gëm nga yàlla bëgg nga yonent bi dañuy wax waaye waxu dëgg te te ki mu tudd léegi di sëñ Tuubaa dafa wax ni képp ko wax laa ilaha illa allah ci gémmiñam sëñ Tuubaa nee na bu leen ko noonu ak kër Cheikh seex Cheikh al Islam. Mhm. Euh, man fi ma jokk tey. Mhm. ci tubaa mooy kër Cheikh Madou Bachir. Mhm. muy Serigne Bassirou di bàyyi xalifa bi tey. ñooñu tey tey waa kër xalifa bi Cheikh Mountakha tey. mooy sama buntu mooy sama buntu ci Serigne ndax foofu laa bokk foofu laa jébbalu euh, ñoom ñoom ñoom laa yaakaar. kon nag bu fekkee ne euh, diggante Cheikh Serigne Bassirou ak Baye Niass. amoon na xalaaxa bu dox ci ñoom ñaar. boo xam ni àddina bi yëpp xam nañu ko. ba noppi. Euh, Baye Niass wane loo xam ni. Euh, jëf loo xam ni ci àddina nga xam ni foo génnee ci pays Afrique yi. nga nga gis li mu tuubal ci ay nit dugal leen ci lislaam joroon na képp ko wax ashadu an laa ilaaha illallah rek nga bëgg bàyyi. ndax ñax benn nit la nga dugal ko ci lislaam mhm. kenn xamul nu mu toll. mais mhm. <laughs> xoolal Niger xoolal Nigeria xoolal Ghana xoolal Afrique du Sud. Mhm. fenn fu ci nekk ay junni junni nit yoo xam ni kenn ku ci nekk la yaa ngi wax laa ilaaha illallah. xoolal keroog bi ma demee keroog si bu xotaan. di di zikkat bi fukki bàkk yàlla di eh. dama dama dama dama mujj di gaale sama dënn am na ku tee sama loxo ni ma moytu da ngay gaañu de <laughs> ndax lii ñii dañ ko tàmm te tàmm ko waaye pas-pas bañ ca demee ak dëgg gën ca demee ak bëgg gën ca demee loolu boo fekkee jotaay boobu yow sax yow yow yow boo doonu julli sax yàlla mën naa jaare ci ci bàkk googu ñu koy bàkk ak bëgg googu yàlla texe la ci ndax yéen mën na yàlla dafa yaatu kon nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaan waxtaan wii mm-hmm. euh, Cheikh Modou Lamine ni ma ko nar a mm-hmm. mu doon loo xam ni njariñ la ci ñun mm-hmm. euh, ci àddina ak ci àllaaxira muy nuyu sëñ Ahmadou Touré euh, ca ca Mermoz nga xam ni taalibi seexal islaam la bëgg seexal islaam jeex tàkk ci seexal islaam nga xam ni bisam boobu bis bu ñëwee nga xam ne fu ne ci àddina àddina fu ne lay jóge ndeysaan tabarakallahu damay damay woo ni ma kay toog bu nu waree jël kaddu nga jël kaddu lu nu war wax nga wax ko euh, bu amee kilifa mu ngi ñëw nga dalal ko loolu loolu bu fekk ci digg képp alkaar tey ku fi fanaan dem aljana mhm. mbay ndaw ni ko suñ fàllu ndax li ngay wax xool nga ko mhm. ndax euh, ñi fi ne te doon ñu jullit ak ñi nga xam ne ñu ngi fanaan ci boîte yi ak ñi nga xam ne ci lu bon rek lañu nekke suñ fàllu tàcc ko tàcc ko ni ko mbay ndaw looy soxot ajjana ndax da nga ko mën a dëkke ba mu ba mu dëkk mhm. ba rafet rek mhm. képp koo xam ni euh, gis nga ko mhm. da nga koy bëgg boo ko bëggee rek yàlla sopp la te bu la yàlla soppee nag nga xam ne yow am nga jàmm ndax ndax ndax suñ fàllu daa wax ni nañu yéene ñëpp jàmm boo leen ko yéene bu ñu ko amul yow mi leen ko yéene da nga ko am ñëpp la yéen a jàmm te Baye Niass nag boo ko xoolee ca ca musaas ba mm. boole xool ko ca ca ca kaalaam gu rafet ga xool xool ko ca taar ba <laughs> xool ko ca xam-xam ba ak fit wa da xam ni kii nitu yàlla piir la te maa ngi seedeel addina ni man sama xol daal def naa ci Cheikhul a ndeysaan <laughs> loolu neex na kontaan nañu sëñ Modou yow moom da nga da nga baax mm. comme ni ko waxee rek li nga fi wax yëpp jaruma ci jaaraat Ah, ñëpp xam nañ fi nga bokk waaye itam gis nañu taxawaay bi nga xamante ne am nga ko ci këru kilifa diina yëpp ba foo mën a dem mën nga faa jël parole wax ci kër ga donc loolu dafa naa ne moom lañu ñëpp war a noonu la ñu war a doxee àdduna eh, bi yëpp buñ doxee woon noonu rek xëy na problème du am donc loolu ñuy ñaan ñi nga xamante ne xëy na doxeewuñu noonu yàlla yàlla dem ñu doxee noonu ah, parce que loolu mooy def jàmm ci réew loolu mooy def jàmm ci ci ci Sénégal rawatina ci këru diine yi nga xamante ne am sensibilité bu ci xaw a nekk donc am na loo xamante ne boo ko ci waxee wax ci loo ci waru wax mën na laa topp sa diiru dund ba dootoo jar dara ci réew mi te dara jaru ko su ko defee oustaz euh, tey bu ñu ñëwee tey ci guddi gi nga xamante ne dañu ko jagleel Baye Niass euh, ci dundam ñu Eh, ki nga xamante ne moom mooy cheikh al islam ci dundam. Eh, jërëjëf di jëyee beneen yoon. Mhm. di sant yàlla bu baax a baax. borom xam-xam yi dañuy wax ne. ahamiyatu kulli xadiisin li ahamiyati mutaxaddisi anhu mhm. waxtaan wu nekk dana am importance ca ñuy waxtaane mhm. waxtaanee ma man amu valeur mais waxtaanee bàyyi ñes yaakaar naa mooy jëmmi valeur dëgg la eh, mam ju baax jooju di Cheikh Ibrahim Niass di Cheikh al Islam di fardul jaamio noo ko tuddee xaddis an asmaihi wala xari te arab ku rek dañ ko bëril tur mhm. mais lu ñu ragalit dañ koy ay mooy kon soo gisee tur yi bëri bàyyi Baye Niass am te ba léegi da ngay gëm ne tur wuñ tudd rek. Mhm. am na maanaa bum mu représenté ci jëmmam ji. Mhm. loolu da nga ciy xamee personnalité boobu ban personnalité. man mhm. euh, ngaa wax ne baayam mi ngi ko tuddee Ibrahim. Euh, waaye dem na ba turu Baye bi sax moo law loolu xaj na danañ ci yàq. danañ ci ñëw mu nekkoon jant. ci xam-xam ci wilaayatu. di geje ak go goo xam ne ni ku nek rek man nga ca lab te man nga xexat mom amul lab dee da ngay lab genn nekkaat benen nit moy al alxaaji abdullah yes al mujahidul kabir jihar na jasi pour toroxal tuba bi nga xamne ni ñewon na pour imposer ni lim bëgg mhm. bëgg ñe mom ta yalla rek mi ñi bind mo ñu Eh, ñëw fekk ku nit eh, ku yàlla libéré mu goreel ko yow nga ne da nga ko ngonk mhm. loolu loolu da ngay indi film Seydina Omar ibn Xataab radiallahu anhu daana wax ne ma tastaabadtumu nnaasa wa qad waladathum ummuhaatuhum ahraran mhm. lu tax ngeen bëgg a def nit ñi ay jaam bi leen seen ndey di jur ñu nekk gor ci mhm. Cheikh Tiyaan radiallahu anhu am na bayt bu mu wax ne atamanna على الزمان محالا ان ترى مقلتاي طلعت حر لي سما نياري بدور بور ما بغكو غيس مو جافي ما موي غور يعني باي نيس دا فلا فيري لوي غور من الحر من تحرر من ربقة عبودية غير الله غور دغ موي كو غورل سا بوب تي لنين لودو loolu mooy mission Cheikh Ibrahim danañ ci agsi léegi ci kanam mhm. ma ne bàyyam moomu mooy maam alxaj Abdoulaye bu mag la woon ci lislaam ak tariqa tijaan mhm. leeram ngi jéggi na frontière mhm. di aji ragal yàlla joo xam ne sàmmoon na lool foo natt ak sàmmoom rek passé na ko nekkoon jëmm joo xam ne daf daan xeex biddaa ci façon bu nekk te bëri lu fi mabbu be te biddaa taxawaloon ko fi su jëlutoon li gi mi ngi fi taxaw te dund duñ ko wax te dee mm-hmm. mais ceddo gi dafay xawoon occupé lëmbe fi am fi benn particularité boo xam ne mm-hmm. da est-ce que ñun yàlla yàlla yónni woon ci ñun mm-hmm. euh, Mouhamed ibn Abdullah mu bokk ci ñi nga xam ne nii moom maam alxaj abdullahi histoire xas na noté seen tur te fa ko bind du ko raafati ci xam-xamam ci mbaaxam ci wilaayatoom ba mujj na bokk ci ponkal ñi nga xam ne nii ba léegi jamono munta doy lu ñee euh, wëlis mhm. seen mbaax ak seen xam-xam mhm. baay ju baax ju dama ne mooy baayam mhm. moo ko yar te yaakaaram tasut ci moom waajur dana sonn ci doom ba àgg ci benn niveau bi na yaakaaroo yàkket mais jii doom yaakaar tasut ci moom parce que boo jàngee yonent yàlla Ibrahima ci bi mu ñaan ne yàlla makk gii nga xam ne dafa fees ak ay caay-caay damaa bëgg nga may ma doom joo xam ne màkk lay génne te mooy demee caay-caay gi màkk nekkee mhm. loolu sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy wax ne ana daawatu abi ibrahim mhm. man maay suma ñaanu baay yonent yàlla ibrahim mhm. moo tax bul xaar ba sa doom juddu nga door a ñaan na yàlla may ma ko mu baax mën naa baax mais avant muy jiitu avant muy ñëw nga jaar ci jaaruwaay ci ñaan ak lu nekk pour mu baax dana baax ku juddu ba pare ñu door a ñaan mu baax donte yàlla mooy baaxal mhm. mais jii doom tasut yaakaari bàyyam mhm. di Cheikh Ibrahim Niass mhm. euh, doom la joo xam ne bàyyam daan na ko tiitaroo tam yëpp moo leen defaral boppam dama koy xaw di misaal yent yàlla yàquba doomam yëpp yàlla dafa def ñu baaxee ci loxoom. Mhm. waaye nag ci biir doom yooyu dafa am ku ci yàlla seppi mu yenentu yàlla yusufa mhm. boo xoolee yusufa ci njël njëlbeenam bi mu ne bëri rek ci la wane fi mu jëm mhm. ci géntam ga ca fam jaar nattu yu jaar ba xëy nekk azizu misra waaye da xool Baye Niass ci biir njaboot ak maam alxaj abdullahi gi ni ko ci yàlla seppe mu nekk seen yusufa loolu jarut guddal mais ku am aynul basirati da nga ko gis moo tax Baye waxoon na ci baayam jooju ne rabba wa kammala mufrada fi asrihi bi wasfihi tafarrada mm-hmm. mu ne sama baay dafa yar njabootam gi yar ñeneen njaboot yi mm-hmm. ku ci nekk mu def la nga nekk kaamilul asri mm-hmm. di sa ajmati jamono mu ne ni ko yàlla defoon nag moom sama baay ni ko melaloon moom kenn la amul ñaareel mu teg ne man xaasa والدا له بوالدي اين فروع كفروع والدي باي موني كيب كوي تكل سما باي اك باي ما ماغي لا دوم يي ملني دوم يي سما بايام جلال باي خليفه ميغا خامي دا فا نيك تاو نيك جودو نيك باخ لمبي ادنا عالم العربي تي خم خم jëlal Seydi Cheikh El Hadj Mouhamed Zeynabou mi ma doon tudd léegi doomam Cheikh Mouhamadou Bachir nga xam ne Hadj Mouhamed Zeynabou magee na bàyyi fukki at mais dafa tourné waat ne ko ci sa njaboot laa bokk wallaay loolu da ngay xool ne du ci njureel gii lay wax mais am na ci beneen niveau bu mu ko juree fa nahnu nashhadu lahu bisabqi wa nahnu min awlaadihi fi lxaq ngi seedeel yàlla ne ne suñu rakk jii di Ibrahima raw nañu moo ko magee fukki at ñi ngi seedeel yàlla ne ci njabootam gi lañ bokk loolu nag baax ak bàyyi ju baax ju takk ay doomam moo xaw a loolu mane ne bàyyi jooju moo ko jur moo ko yar moo ko jàngal bàyyi keneen ku dul bàyyam jàngaloo ci bi bàyyam wane àdduna sax gannaaw 1922 wax na ci làmmiñam ñu dégg ne commencé moom foofu la pare imam Busayri waxoon na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala wala abul abbas mursi Busayri wayon na abbas ne qad naala gaayata maa yaruumul muntahi min rabbihi wala hujtihaadul mubtadi dem na ba yegg ci sommet ba ci mbaax mais boo ko gisee dafa mel ni la door a commencé di wut mbaax pour nga xam lu baax du doy rawatina nga nekkoo xam ne am rangé wu ci sa gannaaw baayam moomu moo ko jàngal ma ne mbaax gi ne ci moom yëpp moo ko def ci moom wax na moom Cheikh Ibrahim ne mhm. wa taxalluqu bi axlaaqi waalidi huwa gaayatu matlabi mhm. man jéem a jikkoo sama jikkooy baay mooy sama càkkutéef bi gën a rëy mhm. nga ne ko lu tax mu ne li annahu laa hamma lahu illa allahu wahdahu sama baay daal dara nekkutu ni lu dul yàlla ak mu ne mi ngi ñaan yàlla Euh, mu saxal ko ci yoonu baayam bi nga xam ne fa teg ay tànkam bu mu ko dévier mhm. ah waaw bu nekkee ne nag euh, baayam nii la ko doon xoolee di ko xoolee bët bu sori te dafa tegoon baayam ci niveau boo xam ne dangay foog ne kii sax dag la ak sëriñ wala dag la ak buur mhm. te fekk boobu am na lu mu bëggoon wax na taawam Seydi Cheikh Alhaaj Abdallah ibrahim Niass nga xam ne moom la tuddee baayam mhm. ci lettre bu mu ko bindoon boo xam ne man dama gëm ne du Alaaji Abdoulaye la bindoon lettre bi. Hmm. mais xale yi doon ñëw la ko doon bind. ak mbooleem ku ne ci keppaar ak mag. Hmm. pour bëgg am lu baax te bëtam njureel du la njuuy. Hmm. parce que dégg nañ bàyyi mu ne. wilayetu ñaar ñoo ci gën a tardé jabar ak doom. parce que toujours dañuy wax ne man kii mooy suma baay wala kii mooy suma boroom kër ba ni nga war a farloo ak ni nga war a góor góorloo pour am li nit ñi di wut doo def. bu yàlla xippee sa aynul basirati ba ngay rëj-rëjloo ak taalibe yow da ngay am plus bàyyi loolu la doon ñaaxee doomam mi mu waxtaawam bi ne ko wa uhaddithuka bi sidqin maa ngi lay waxtaanal waxtoon wa waxtaan woo xam ne dëgg la ci man bi anni kuntu muridan li abi man suma taalibe bàyyi laa woon moom bàyyi ñes mooy wax mu ne moom taalibe la woon ci baayam maam alxaaj abdullahi ñes radiallahu anhu saadiqal iradati taalibe boo xam ne nammeelam ci sëriñ bi dafa nekkoon nammeel gu dëggu xawiyal itiqaad yi koo xam ne nii pas-pasam ci sëriñam pas-pas bu dëgër la woon xadamtuhu kama law adraktu rasula sallallahu alayhi wa sallam mu liggéeyal naa sama baay ba àgg ak moom ci niveau boo xam ne su ma jotoon yonent bi sallallahu alayhi wa ma dund moom nii sax mënuma paase ak moom foofu وقد xamidullah الله على انه كان راضيا عني ما sant يالا سما bàyyi nag laata mu fiy jógee daf maa gërëm gis nga dom juñ gërëm ak juñ gërëmul jërul wax boko xolé rek xam ne dañ koo gërëm loolu mu ne ko ghayra saqitin anni sama bàyyi de lolu nak de xam ba bi mu fi يو تبكي عليك الأرض تبين لي بأن الأرض تبكي كذا أهل السماء من الأيام ورن من سما باي مي كتن يتاي جوي وأسمان كوي جوي تبمتن مكو جوي وتبكيه المساجد والزواج tëbkii siraami jumaa yaa ngi jooy suma baay zaawiya yaa ngi koy jooy mboolem fànni xam-xam yaa ngi jooy rongiñ yoo xam ni amul dagg dagg bi ju baax mooy bu yaatu yonent bi nee na ñett yi mu aadama moo xam ne marchandise marchandise mi gën ci marché wala li gën ci marchandise bi rek mooy soxna su baax hmm. moo tax yonent bi waxoon nañu ne taxayaru li nutafikum fa inna al arqa dassaas yéen hmm. góor ñi hmm. dee leen tànnal seen doom yi yaay yu baax da nga déggee ci ne jigéen ñi tim dee leen tànnal seen doom yi baa yu baax l'islam tout voilà dafa équilibré Euh, mama su jànq moomu ak maam alxaaj abdullahi moomu ñoo ko yar ci mbaax mhm. bëgg lu baax bëggal ko jàmm ne ci baayam jooju ci la jàngale alxuraan ci la jàngale ci la jàngee xam-xam ba goreel ko ba mujj nekk alxuraan ju doon dox ci kaw suuf mhm. moom Cheikh Ibrahim ay jëfam mhm. di dellu ci alxuraan ay wax di dellu ci alxuraan kii ñuróowu sa ak nit ñi Eh, te loolu da ko jëlee ci bayam ndax maam al hajab bi bim aje ajam ga bokku nit ñi def tay aj gaaw rek retourneat mom aju borom xam-xam bu doon defale siyaha moy di tourisme dem di eh, pare aj di wër fofu ci aalamul arab bi mhm. dem ba ak Égypte mhm. nga xam fa la xam-xam sam bu baax mu tok ci géewi ay borom xam-xam ku nekk di fëgg sa dañ di wax ne li la ma yalla may Euh, fànn bi laa goreel domaine bi laa goreel mu ne nii loxo ne leen wa ana aydan li yel yadu tuula fi tafsiri kitaabillah man tamit alxuraan nag nga xam ne soo ci jiitoo rek jiitu iri na ko téeméeri yoon ak ñett moom ci dundam ma Maalaaj Abdoulaye mhm. génnee ci lim dund ci at ak lim jàng yépp kon nga xam ne dundam yëpp alxuraan la jooju bàyyi moo mën a jur doom yi déggoon naa benn bayti waaye dama ko mokkulut teewluwuma ko ñun suñ maam Cheikh Ahmad Bamba moo ko waxoon ne boo bëggee firaar quran fa innahu la budda min alaati xawma li tafsiril waaye mokkuluma bayti bi waaye ñuru na waxam ndax ñoom ñëpp ñoo bokk ci benn manza bu ñu tibbee mhm, benn connexion la benn connexion la mhm. kon bu ne la am na loxo bu gudd man ci firaar quran loolu mooy jiitu naa ci baayam jooj di maam alxaaj abdullahi ci la jàngee xam-xam ba yàlla ubbi ko mu mujj nekk jëmm joo xam ne waxuma euh, jëmmi xam-xam dafa dem mu ne moom baay ba mujj dajee ak jëmmi xam-xam loolu danaa ci si ci kanam waaye kër baayam dafa nekkoon dafa nekkoon euh, station boo xam ne boroom xam-xam yëpp dañ daan ñëw di fa daanu si ñii dañu ñëw pour xam-xam mais ñii dañu ñëw surtout suñ mbokki naari chérif gànnaar yi mm-hmm. daan ñëw di jël seen xàq mm-hmm. eh, seen addiyaay maam mm-hmm. maamalaa ji daf leen daan teral ba tax foofu da daan festep xam nga boo xoolee taalibe yi sax kër gi ëpp sarax fa la ñu gën a baraake bu ñu yalwaan waaw te ñoom nag xam-xam moom lañ daan dundee et moo tax nag kër maamalaa dafa nekkoon sippeekuwaay borom xam-xam yi rawatina naari gànnaar yi nga xam ne dañoo sew ci xam-xam mooy dañ ciy dem ni seen i tebe nga wóolu sa xam-xam pànk pour nga mën a defante ñoom am na ci benn naar naar dañuy testé am na ci benn naar toog na ak Maam Alaaji Abdoulaye di masala su Maam Alaaji ne nii naar bi ne ko nii fekk bàyyi ngi toog ak moom bàyyi dem hmm. ba ci yàggara mu fexe ba këf fii lu waxtaan ji rek pour noppal bàyyam pour wan bàyyam ne ko hmm. li nga jiwoon nag sax na hmm. bàyyi maag waaj bi ne nii bàyyi ne nii naar bi ne nii bàyyi ne nii ba mu jigi naar bi ne ko man waxuma sama wax borom xam-xam sàngam ma wax bayina ko wedi ma la borom xam-xam bobu la wax ne li ma amul. wallahi mais ma la jiré sant yàlla sant yàlla. ko xam ne. njëmbatam bi meññ na. wallaay. te waxoon na la mom bayine euh waqad tamma fatxi. inda mahdi waqad anat jamiu rijali alxaybi taxta qadaa'i. man bi ma nekkee ci berso. booba la sama fatxu mat. mboolem góor yàlla yi toroxlu ma ca aalamul xayb. متكنا طويت علوم العارفين بأسرها بشم راي المصطفى صاحب الصدق دما لم بولم قم قم يقول يا الله يتوك كفنت جنا قم نفنت ناكو قتك ينتو صلى الله عليه وسلم وخنين والعبد قد لقي عين العلم وجاءه الإذن بدون وهم جام بيد إبراهيم يس dem na ba dajee gémmi xam-xam ja mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu am ndigal lu wér bu jógee ci moom bu duur ak def def la kon nag bu nekkee ne euh, kooku la te cheikhaani kenn la ci taalibe mi wax ci bàyyi ne fil kutubi qad taati wa taati bi ma lam yati qattu bihi kitaabu mu ne bàyyi ñes lépp lu ne ci téere yi boo ci demee moom rek mu bàyyi la ci gannaaw waaye sax dana àgg ak yow ba àgg ak yow ci lu nekkul ci téere xam nga téere dafa dee mais xam-xam dëgg du xam-xamu téere donte baax na mooy voie bi ngay jaar pour àgg ci xam-xam dëgg mais damaa xam ne bu nekkoon ne xam-xam dëgg rek buy ne ci téere yi hmm. naarab gànnaar du topp Cheikh Ibrahima parce que ñoo moom loolu dañ ko maîtriser ñoom la ko yàlla may hmm. waaye buñ balee suñ mënee jël liñ jàng yëpp teg ko fële hmm. ñëw rangé wu ci gannaawam di ko bayal ca kóosi bay ñàkk dàll duñ lekk duñ naan te moo leen gënal seen askan moo leen gënal seen néeg yañ bàyyi ah loolu rek waroon naa doy Sénégal ñu jéem a am benn curiosité intellectuelle jéem a gëstu pour xamul lan la mais xaj na chey an xëya law asbaabahum Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop miñ xam ñun ñëpp ca njëlbeenam ci bi mu bindantuway waxoon na ci baay mu ne mu ne fa dhalika adra nnaasi muzkaana yaafian bi jumlati ma taxwi butunu dafatiri mu ne bàyyi ñës na ci biir téere yi wa dalika abdulzati xibbu xabibiha wa adamutil ard bàyyam xam toujours koo koy jëndee loolu néew na nga gis ko tey ci doomi soxna waxuma amut mais néew na nga gis ko daf ko daan liggéeyal ke baayam parce que xam na ne baayam la waaye borom wilaayatu la en même na baayam ci xam-xamam liggéeyal ñaqam liggéeyam daan ko liiral téere yi daan ko jàngal alquran daan commencé ci baqara balaa fajar mu àgg mina jinnati wan naa si pour ko bàyyi eh, am gan ak shérif gu ñëw te am na ci dura gan ñëw sonn mm-hmm. te gan dafa am xaq mm-hmm. naar ba waxoon na ne soo ak fekkun baasiman في وجهه متهللا وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك وقدم له ما تستطيع من القراء عجولا ولا تبخل بما هو هالك فقد قيل بيت سالف متقدم زيد وعمر ومالك dachet سو اميغان gan ubbil ko sa xar-xaram moo gën nga ubbil ko sa kër parce que da koo soxla. waaye loo ko mën a defal ci teraanga te yaa ngi ko tëjal rek. goo gandu yaatu. arab yi dañuy wax ne. Euh, raxbul falaati. ma al dayiqa sàmmul xel bi may daanu bën bën a puso. lu yem ni loolu ci espace boo fa nekkee ak say soppe rek dafay yaatu. Mm-hmm. yaram. wax na lu xom wax ju nekkul dëgg ci waxu yaaram waaye boobu bokk maanaam li ñuy wax kanam du kaso waaye koo ci tëjal mu xam ko mhm. nga xool gis nag ne mu leen daan tuddal téere yi waaye guddi def daan gan gi ñëw mhm. foofu laa nekkoon gan gi ñëw sonn mhm. xañ na bëgg na noppalu il ko ku bëgg noppalu da ngay soxla voix bu apaisé tuuti te bàyyi moom daf daan jàng ci kaw ba bàyyam du ko dégg ndeke gan gi ni njàngam baay mi di demee ci kaw arrangé ko mais njàng mi demee ci kaw ndeke moo arrangement wala jabalaay hmm. waaye bàyyi xam ne xaqi gan la hmm. mu wàccee niveau bi tuuti hmm. baayam déggut jàng yim daan jàng guddi mu xëy suba ne waa Ibrahima moom lu tere jàngu démb ñu ne ko jàng na de waaye dafa wàccee kàddu gaan gi mu ne ah nit ki loo xam ne ci wàllu yàlla la toujours la taxaafu fi daalika law man ak loo bëgg teral teral gan nag mhm. wax dëgg yàlla am na loo xam ne ni comme sa doctrine la soo ko waree jël jël ko mhm. na ca kuusi di ko jàngal baayam guddi mhm. wala ñu ne julli na gee dégg benn xale ca daara ja mu jàng benn aaya euh, xale bi aaya bi jàng rek bàyyi ne ces aaya ja mun a moom ba mu na jëndati wa nees loolu xam ne Euh, am na beneen niveau bu mu doon dundee xam-xam mhm. te alquran mooy lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan dem ci Abdullah ibn Mas'ud alquran mu dégg mhm. su ko Abdullah ibn Mas'ud ne ko ah, yow kanaa du ci yow lañ wàcce alquran mu ne ko dama koo bëgg a déggee ci keneen bett na ko gannaaw mhm. benn bes mu taxaw ci gannaawam Abdullah ibn Abdullah ibn Mas'ud xamul ne yonent baa ngi ci gannaaw yonent bi di jàng di jàng ba agsi fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bi shahidin ji'naa bi ay shahida yenentu bi ne ko xasbu ko xasbu ko doy na doy na Abdoulaye gettu gestu gis fekk yenentu baa ngi jooy mhm. mu ne ko yaa rasulullah kon yaa ngi ma doon dégg mu ne ko waaw mu ko bu ma xamoon ne yaa ngi ma doon dégg kon la xabartuhu taxbira kon dinaa ko gën a neexal suul yu ne jëlee sax ne neexal alquran di ko tej wi di ko mhm. neexal kenn mhm. mënu koo dindi bàyyi taalif ne téere boo xam ne berndeel na lool benn chapitre boo xam ne mhm. kaamil mhm. ci ngay jàngal Alxuraan di ko neexal du lu kenn mën a dindi te mu indi ay xadis yu wér ci loolu mhm. kon ma ne koosi googu dafa wane lu lu kemaane waaye nag biñ demee nag ba 1922 baayam génn àdduna mu jooy ko lool mu wéetal ko ndax dafa nekkoon wéetalam ci côté bu nekk wax na ci waxam ne ko tëb kii tëb kii uluumu alayka xiina nawmuka qad jara tey xam-xam a ngi lay jooy xam-xam yaa ngi lay jooy ak yoonu sidna cheikh mi nga xam ne moo jiitu mboolem yoon yi mooy tariqa tijaan a ngi lay jooy depuis nga nelaw tariqa tijaan a ngi lay jooy xam-xam a ngi lay jooy wax na ko ne ko wa huwa alladi shahidat adaahu bi fadlihi suma baay mii may jooy mooy koo xam ne noon yi dañ koo seedeel ngëneel laata soppi di ko ko seedeel mhm. olof mu ne ku sa wujj di sëlam doo set doo set mhm. mooy ku sa noon dem ba gërëm rek baax nga ndax soppe lañ xamoon ne mhm. moo war a moo gërëm ne bi kawnihi fawqa shuyuqi kama sama baay yéen ñëpp gis ngeen ko yàllaa ko jël teg ko ci kaw teg ci kaw sëriñ mu tiim lépp euh, wax ko law بعدك قلفة تقصر ومثلك لا يكون مقصرا لا تنجو في جوجي دان في باي اي خليفة اي كوتا نحما ملاجي وهو صار دومامي ما تالي بم يمجيم دفر اي خلفاء ولا منوكو لا تنجو في جوجي دان في باي كوتا يو وير كوتا سو كو دفتون دان نكو غاتنجو تكو ملني يو نسوار تغاتنجو دم بچه بير منوكو ما كنتو ادري قبل دفنك في السراء anna shumuusha takunu fawqahunna thara laata ñu lay jénc ci suuf musuma yaakaar ne ab jant danañ ko wàccee ci suuf gasal ko pax ci suuf di ko suuf biñ la ko defee rek laa ko door a gëm jantab xam-xam ma maam alaaji abdoulahi jantab wilayatu moom la jantab mbaax tuukur a haddis an wilayatihi waaye gannaaw baayam magam di taaw njëkk a juddu njëkk a baax baay xalifa moo toog ci chaise bi fes ko teb nag bàyyi dar ko. Mhm. comme ni mu daree woon bàyyam. comme ni mu daree woon bàyyam. di ko xidmaal. Mhm. ni mu daan xidmalee bàyyam. Mhm. di ko wàccee wàccuwaay bi mu daan. wàcceel bàyyam. wàcceel bàyyam. daan nekk ak moom ci li ëpp ci ay e, juróom-ñaari at yi nga xam ne. gannaaw bu Maam génne Hadj Abdoulaye génnee àdduna 1922. ba fin 29 ci bi bàyyi di oote faydu yëpp mi nga rangé wu ci gannaaw magam. deggal ko top ko di tarbiyu comme da ngay wax ne déedéet kii du mag rek mhm. mais bam xamna lim doon ut mhm. waye biñ demee ba am ben fekk avant loolu sax dafa am ci taalibi Maam Rajab mhm. ku bind bay letter ne ko dama bëggoon nga firil ma alxuraan te dama nisaroon ne kenn duma firil alcorane ku du lew bàyyi ko man timi dama nisaroon ne loxob xam-xam kenn duma ko talal ma diko ko hmm dana la firi la alquran mhm. mais comme magam ji moy bayam tay bind ko lettre pour nako abal téere alquran moy jalal suyuti ak mahalli mhm. bi nga xamne mom moom la bàyyam daan firee alquran mhm. pour mu di ci xol di ci barkelu bind ko lettre ne ko ngi bëgg nga abal ma ci eh, ca ben gi sax daf ne ko dafa am kenn ci soppi ku ma ñaan naa ko firil alxuraan te moom nee na dafa nisuroon ne kenn du ko ko firil ko dul man man tamit damaa nisuroon ne loxob xam-xam duñ ma ko tàllal ma di ko delloo wa lidalika azamtu ala tafsiri lahu insha allahu taala dogu ko firil bëggoon naa na nga su mun def rek loolu loolu moo gën mm-hmm. mu ne ko nag ma tàggul suma yaay wax ko ne ko bu ma aaye xam nga waajur surtout jigéen mhm. doom ju commencé di tëll mhm. yaa ngi ragal ba cat ko topp wala nangam mhm. pourtant dama ne manoon naa wax yaayam directement ne ko bul ma aaye mais lu tax mu jaarale ko ci magam ne ko waxal sama yaay ne ko mooy am kilifa kilifa bu ma aaye charan ñu jot téere bi mu firi nii ci xattu bi alif laam mim dalika alkitaabu laa ba fii di ca wax lu nekkul ca Jalaal Suyuti ak Maxalli waaye xoolal bi mu demee ba firi alquran mi pare mu war koo tëj magam jooju di bàyyam moom la dem jëli ne ko kaay toog ci chaise bi yaa ñu koy tëjal est-ce que biñ toogee ci mbooloo mi mu ne may leen ma ma gërëm xalifa di taaw di mag njëkk juddu njëkk a baax ñun dañoo judd fekk la nga mat yaay taw ci kër gi soo jëloon beneen yoon bu dul suñ yoonu bàyyi ñun yow la ñu xool mm-hmm. parce que foo ñu jaarale woon nañ jaar sant yàlla biñ ñëwee fekk la nga nekk taaw bi gën ci taaw yi mm-hmm. kon fu ñu jaar tey rek amel nañ la àllal ba jërëjëf ñes loolu da nga ci jàngee dimension mm-hmm. njaboot ak Maam Rajab Laay gi ni leen yàlla mayoon ñu nekk ndeysaan defe naa ne Euh, waxtaan wi mu ngi gën a neex sëñ Modou. wallaay ndees ah, bëggoon naa tamit euh, Cheikh Amidou. Mhm. Ah, mu yëkkatil ñu su ko defee ñu. ñu zikkar tuuti dellu si ci plateau bi parce que message yi ñu ngi vraiment ñëpp a ngi apprécié rawatina Facebook bi ñu ngi jot ay message yu bëree bëree bëri ñi nga xamante ni ñu ngi topp waxtaan bi fu mu nekk nii ay MC euh, Niass MC Baye Baye waa MC ah xamoo caat mooy caat. te ah évidence. surtout kii nee na surtout kii mooy caat caat du sët de. ah loolu ñu bëri. ñu bëri def nañu ah évidence mi ngi leen di ah moom sunu sunu sëriñ la. moom sunu sëriñ sunu sunu sëriñ ba pare sunu xarit. ah moom sunu sëriñ ba pare. ah xamante ngeen kon. ah MC MC <laughs> MC kilifa la de si dëkk bi MC moom ma invité eh, gàmmu ñetti gàmmu ñetti gàmmu mi ngi nii. Eh. du ko gàmmoo fenn këram laa koy gàmmoo. te Kaolack. Baye Mbaye. Eh, ñu ngi koy ziar bu baax a baax xam naa ne mu ngi topp guddi gi fu mu nekk nii. du moom kesewaay ñu ñuy topp guddi gi bëri na gannaaw Amidou bu ñu yëkkatilee ay zikar incha allah dinañ ñëwaat su ko defee ñu nuyu ñi nga xamante ne sëñ Modou ñu ngi topp. ci Facebook bi vraiment tey wane nañ ne. Mm. tey guddi gi amal na kéemaan la min kulli qalqin salaamu deewa qalqin illaahi toola layaani min kulli وعليكم من كل قلق سلام وقلق الله طول الليالي وعليكم من كل قلق سلام والجهاد طول ليالي تلا البدر يوم بدر ببدرين في هوط حم النجوم رمادي وعليكم بكل قاف سلام دفق القراية ليالي وأتده أملاك جيل جبريل فيهما قال هيذوم فاقدمي للقتال وعليكم كل واقف سلام دفاق القرآن وكفاه نظر الإله ولكن تطمئن القلوب بالإنزاد وعليكم من كل خير سلام دفق القرآن فأثار الكفار دورا حصارا ثم قد لا الدم كالجرياد وعليكم من كل خير سلبوا ضيق قلق العيدون ليالي سلبوا هو يم ترحم دور العوالد فقلق العيدون ليالي لربي رحيم آي يزدادين هنا أقوى المولى الكريم الوادي كل خلق طلبوا إذا خلق إلهي طول ليالي ورماهم من قبضه حصياتهم بل رماهم مولاهم لنكادي وعليكم بكل خلق طلبوا وقك إلى طول الليالي يوم ذبح كبس السمين أبي الجهاء لليوم التميد والإجلاد عليكم بكل باق سلام بقك إلى طول الليالي افعلوا ما تساءوا نفحت الله فانكم ذو الجلال غضوة بل فتح مبين وبدر هي بلادي كل ثم ولى لطيبتنا بعد همين ذلك كالجيش وسطهما خير وادي وعليكم بكل قلب بالسلام وفق قلبي لا الليالي ثم جاءوا لجهلهما يوم أهدي في قميص قيولهم بالإمادي طول أيضا ونالوا انقفادا بانقفاد الكفار إن المهادي عليكم كل قاتل صلاه خلفوا طه إلهي غير فوضي من ذا القطاع للغاية عليكم كسروا للنبي إحدى صنايا قسمت درء فوق طه الآلي ومدى حمزة سهيدا دليلا

يجى الشحب إن ضاء كما قالوا ما تداها الأمين في عدي وعليكم كل غاكر صلاه